alaaji Mansour tawdal jalaalaati sabral qalbu muslima yaa mujbal qawmi suudin wal bayaa bi alaa matni siraati bil ulaa alaa kawaa'il malaa'ikati yaa dharhumi ألا إن للتجان قطرا مفخما ومرتبة فاقت جميع المراتب وأودع فيه الله عامر سري وشرفه في الكون تشريف غالب وألبسه تاج المهابة والأنا شيخ وصيره غوثا لأهل النوائب وأضحى أمير الأولياء بعصرهم شاخ له الحكم والتشريف بين المواكب أيا طالب الإحسان ناد وقل له أيا محي ذكر الله بلغ مطالبي إمام كساه الله خلعة نوره شيخ وحكمه في شرقها والمغارب وألبسه تاج المآبة ولنا شيخ وصيره غوثا لآل النوائب ومدوا له بعد أرض رقابه شيخ وأم إليه من جميع الجوانب هو الرشد العليا لمن كان حاملا هو المورد الأغنى إلى كل شارب ألا يا سرور النفس يا غاية المنى ويا ملجئي عند اشتداد النوائب أغثني أغثني يا ملاذي فإنني إلى بابك الأعلى أنحت رجائبي فمن علينا بالوصال وأقلنا شيخ وطهر بنينا من جميع الجوانب فمن علينا بالوصال وأقلنا وطهر بنينا من جميع الجوانب وأهدي سلاما يملأ الأرض والسماء شيخ إلى حضرة التجان بحر المواهب سلام على فاس ففيها أحبتي شيخ وفيها منى قلبي وأقصى مآربي صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل آل المناقب dama ni yi nañ koy xoole bi aynil insaaf laa bi aynil intiqaad lu am solo la fa tabaarakallaahu e sànq sëñ Maxtaar laataa muy dem maa ngi ko bëggoon a nuyu ay yàlla dogal mu dem waaye du tere rekk ma nuyu ko du tere itam ma jëfal ko ci ay taxawaayam ci biir ak ci biti sama borom yàlla dolli ko taxawu bokk yi gis nga àddina li tubaab di wax il faut du tout pour faire un monde c'est très important Cheikh Tidiane radiyallahu anhu lu leer la waxanteeg yonent Yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam lu leer la ko wax bañ na ko ba Siraaj Malik bi muy wax sax daf ne cheikh bi muy wax ak yonent bi wax ju leer nañ la waxanteeg moom lan moo indi fa ajaabahu bi maqaalihi saafi baat boobu lu ko ci indi pour wane ni Cheikh Sidi Ahmed Tidiane li mu waxanteeg yonent yàlla Muhammad lu leer la xam nga wa baada ma qaddamahu lkurdiyu ra annabiya almustafa safiyu cheikh naka jekk suufiyanke la léppam dafa leer waaye itam fa ajaabahu bi maqaalihi saafi pour wane ni moom lu leer la waxanteeg yonent bi te bokkoon na ci lim ko wax ne ko responsabilité bi nekk ci yóbbu nit kër yàlla dafa bare te yoon wi ñagg-ñagg yi dafa bare te iblis la mu waxoon diñu ci te yàllaa ko dooleel xam nga la aqudanna lahum siraataka almustaqim léegi nag d'accord naa ci li nga bëgg fekk boobu yonent daf ko proposé ni ko ah man de bëgg naa wax dëgg yàlla nag nga wàcc nga jaxasoog nit ñi nga jox leen yurdu salaat alfaatixi li maa xuliq moom raw na kenn waxul waxam àddina bi ba mu teg benn tijaan la am muy Cheikh Tidiane Chérif jeex na ba mu teg benn tijaan la am muy Cheikh Tidiane Chérif keneen ku may moom ñi yëkkati sa loxo nga ne man tijaan la ñeme ñëw ko wax boo ko defee yaa ngi dugg ci aminu makrillah yaa ngi woolu pexe yàlla te Siraaj Maalik li mu jàngal mooy janaaxay rajan tër wal xawfi naxwa maliki boo ko defee kafaaka rada baril anami xasibu moo tax lu indi fa nadu llaha mawlaana mamaatan ndax dugg ak yegg du benn déedéet lu indi inna duxuula uxayya ak inna al wusuula lu indi tuubee li aaxidi hada al wird waaye saaliki hi kon ku ne xam na ni eh, du ko jël rekk soobu nga te ku du tiit du ko soobu yegg nga waaye nag waaye nag waaye nag ñi aju ci Seydi Malick radiyallaahu taala anhu dañuy yegg dañuy yegg dañuy yegg dañuy yegg waaw dañuy yegg loolu masiyu la moom moo ko ñaan yàlla moo tax lu fi mag garaaw garaaw boo demee ci moom mu xam ni ci Seydi Hadji nga wékku du la ñemeñ a yeesal am lu tax kooku masiya la yàlla ko ko defal kon nag li am solo rek mooy sanq bi may wax dafa fekkoon imam bouger almasiya la taqtadi bil afdaliya jaza allahu qutban qad xawaa bi masiyatin dëgg la yunajji liman yawi law bi madarrati benn boobu rek xam nga sëñ Babacar moom ay waxam dafa dafa day xaw a doy waar parce que moom wallahi xalifa xalifa dafa jàngale wane ni yëf yi cheikh la moom wane na ni boo bëggee Cheikh Tidiane noppalu nga yii nit ñi di wut yëpp am nga ko après nag kañ nga ciy jot nan nga ciy jotee loolu benn affaire la mais am nga ko xam nga kii wax ni fa anal mutayyamu in arafta kafaani loolu doy na sëkk fa anal man may ki la sopp ba jeex takk ci yow wallahi in arafta boo ko xamee rek yow Cheikh Tidiane kafa doy na ma leneen lu mooy loolu bëgguma xam nga nekk taalibe Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiallahu taala moo dajale yiwi addina ak àllaaxira nee na sëñ Abbas Sall nee na Cheikh kafaani qutbu ahmadu an siwaahu wa gayri gayru ahmada makafaahu waaw nee na cheikh doy na ma te ku dul man wax dëgg yàlla ak kenen doyo ci waxin dëgg la nag bokk yi dama doon eh, nuyoo sànq booba xëy na imam dafa bougé maa ngi koy nuyu bu baax Serigne Jabel di ko ziyaara bu baax di ko ndokkeel ndax xew-xew bi yàlla dogal na xew-xewam la di ko bëggee itam suba ba nag ni ñoo fi bokk nekk ma xam digganteem ak Seydil Hadji Malick Dieng muy ku baax lool waaye itam tabarakallahu muy ku mën a yaatal comme ni ma ko waxee sànq ci bokk yi moom itam taxawaayam ñëpp xam ko ci tool bii di lislaam yal na yàlla gën a dëgëral yal na yàlla gën a sàmm yal na yàlla gën a yëkkati eh, tabarakallahu li ngeen di def yàlla rek moo am seen fay ndax di yeete ci diine te yàlla tax yombul waaye ku koy def nag baya boo toogal taxaar te xam ni yàlla subhanahu wa taala mën na waayam waaw mën na waayam kon nag tabarakallahu jërëjëf seen jabel fi ma doon daaneele nag ci nuyoo yi sànq amin mooy taggikati yonent bi man damay daaneel suma kaddu waaye mënuma ko daaneel te nuyuwuma leen xam nga dama amatul fan laa leen ko wax mooy mbaax weesuwul foo dajeek nit yow nga jël sa mbaax jël sa juddu jël sa xam-xam jël sa wilaaya jël sa lépp teg ne jël mbaaxu nit ak xam-xamam ak wilaayaam yàllaa xam di ko fésal di ko yëkkati di ko wax ñépp di ko dégg mbaax paasewul loolu loolu mooy mbaax te daa iman loolu ngeen nekk di ko di ko di ko def loolu nag dafa dafa am lu luñ ci war a jàng mais pas di ko wax rek mooy des ko war a jànge ci yéen des ko war a royaate ci yéen des ko war a jëfe jële ci yéen parce que dafa am solo bokk yi ñu doon tagg yonent bi alayhi salaatu wassalaam bay daaw góor ñu ngi lay nuyu imaam nee na xaritam nga nee na itam baayam nga nee na itam soppeem nga tabaarakallaahu ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaara mag mu mën a defar nga nun bu dee ay xale it am nañ xel loolu la yàlla dogal dee ay xale it am nañum xel mag mu mën a defar nga waaw te loolu dafa am solo gis nga wax boo gisee ñu tëgg fànnu naxwu ak fànnu bayaan mantiq ak fànnu balaaxa dafa am lu tax ñu tëgg ko pour jàngal nit xaayaani wax mu bañ a juum ci kàddu looloo tax ñu tëgg fànn yooyu moo tax ku leen di déglu day jàngaat même bu jàngoon ummahatul kutubi jamilil mantiqa bin ndax fa man yuxrimil iraaba bi nutqi ixtabal jërëjëf sëñ Pape kon nag bay daw góor samicna wa taallamna wa fahimna wa inchaa rabbuna sawfa naamal jërëjëf yal na yàlla yàggal la ci kanami njaboot yi yàlla yàggal sa barke E, ni mu ko waxee rek la amee yàlla ñu boole te ci li mu ñu boole loolu ba àddinay tukki la moo tax rafetal ko rek moo mën a nekk fa tabarakallahu maa ngi nuyoo sànq ci biti ak ci biir fii Cheikh Alhaaj Abdul Aziz Mbaay mu daw mu ni ma mu ni sëñ Jabel mii ak sëñ Ibrahima Ahmad dama ko sopp ma ni ko man mii maa la gën a sopp ma ni ko wax naa ko waraaka gayra ma marra wax naa ko ci sa gannaaw lu dul benn du ñaar du ñett du ñeent doonte nag nun xam nañ ni nit ñi duñu bàyyi weer ci fan ñun xam nañ loolu on comprend nous ça on comprend te compréhension boobu nag dimbali nañu ci yu bare alhamdulilah rabbil alamin wax naa ko ñoom sëñ Habib ñii léeg-léeg buñ dajee ma ne leen yéen moom xaw ma ñan mais na ngeen lu boobu kenn jéem a dugg suñu ay diggante parce que bu ñu doon yi ñuy jóge dakaar di dellu Tivaouane ñooy bokk benn woto kon donc yooyu moom na ngeen ko xam rek bu ko defee rek ñu bokk see mu dem loolu la loolu la yàlla dogal kon e, Sëñ Abdou moom itam ñi ngi koy nuyu bu baax gis nañ li mu fi yëkkati yëpp fa tabarakallahu Eh, ku ko dégg xam ni fa muy jóge yàlla def na fa leer waaye mhm. ku dégg di nga xam ni fa muy jóge mhm. yàlla def na fa leer loolu la yàlla def kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla yéen itam ngeen bañ ñu fàtte ci ñaan xam nga am na koo xam ni ndeysaan nday ñëw taxaw mi ngi tagg yonent bi yow yaa ngi toog yaa ngi déglu fekk yaa ngi perte te yëgoo ko waaw ah, yaa ngi perte te yëgoo ko parce que tu penses que kii li muy def nii lu woyof la wala nangam yonent bi dina futti mantoom bu tedd ba di ko sànni ci nit ku tekkiwul dara yonent bi dina daajal min minbar nit mu taxaw di ko tagg te koo ko tekkiwul dara loolu mën na nekk ku taabul wax yi ñi daan bind alquran yi yonent bi mosu leen defal loolu Hassan ibnu Thabit min kuttaabil waxi Zayd ibnu Thabit min kuttaabil waxi taxul yonent bi defal leen loolu. Hmm. ah. فخر وسندي محمد الأمير ما شاء من يدلي لوا بتودي واي جرجان مرينا تعالى فيني لم غير للنبي محمد محمد الأمين مديح كان أزهار الغمائل التي أحب نبي الهاشمي محمدا ينبو أجل الورى ذات وأصلا ومحتدا يتنمت وطيبا نفسا وأموالا يدائم الطيب لو الرحمن نشأ ومولدا ينجلب فما زال ممن خالف الحق يبرأ بنجم العوام مظلم في المصطفى سأمولد ينبوها وما زلت في ساوى المتجدد محمد الامين صلى الله عليه وسلم مبينا فيعمل له قلب ليوزع في ام سدين الله ينتبه قصوف امتداء إلى اسمي محمد محمد الأمين عجائب لا تنفاك تنمي وترزقا دخل في يوم بدارة جلجلي عاينا به فمدح رسول الله فصل وأجملي تلامت وقل الذي يعنى بحب تنفلي عاينا بي ما من ضمان علينا ما أفضل المرسلين محمد الأمين فمنح رسول الله من عوكة الفرد بارك الله بارك الله محمد محمد ينبي بارك الله وارجو بي في الحاشر تكريم موردي ينن صلى الله عليه لأن بالمختار والله أرتدي ينن بي يا ذا الفنيل إلى مدح النبي محمد محمد الأمين نبي كان الخمائل شيبة الأنبياء جل مكة يا لنجن الله عليه وسلم هنيئا لنا من شفاعة في الغليل يا ننبو ينال ردان كل عبد مؤيد محمد الأمين على خطيف ذنب وتعمدي آه جرائرنا تمحى بجاي محمد محمد الأمين باي فات من دنيا كار بوتيت ما مجالنا البر والتقوى والفضائل وينبو إضافة إشفاقي وخيري ونائلي ñoom la zaman bi qubuur alxaq min gayri qaayili ñoom saabaya wallahi أقرأ لآياتي لا ودلائلي مبلغ صفقنا بك جنون وانتنا له eh, jërëjëf tabarakallahu eh, dama doon nuyoo rek eh, ndax jotaay bi ni mu bindoo wax naa ko sànq je vais le réitérer loolu lay tëjee am doon nuyu ñii doon tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi sifa ma nag Ibrahima maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziara maa ngi lay ndokkeel moom sama soppe bu yàgg la moom ak shérif mii toog yàlla moo dogal ay kóllëre ci suñu ay diggante même bu suñu ay gise barewul yàlla boole ñu lim ñu boole ñu xam ko it nag te loolu rek moo am solo Sidi Ahmed ñu lay nuyu ji la ziyaara yow itam taxawaay bi rafet na woy yi ku ko dégg dina xam ni wax dëgg yàlla woy yéene la ci waxin ndax yéen du ngeen woy lu mooy woy yéene waaye c'est une manière de parler pour wane ni pasteefu gi ak faydal gi wax dëgg yàlla am na ci solo te gis nañ ko Sidi Ahmed yal na yàlla taxawul yal na yàlla gën a yokk a yëkkati li ngeen ci bëgg bu ñu leen nee yàlla na ngeen ko am dañuy baaxental rek salaatal faatixi li doole ji bari yépp dara waralu ko lu dul tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ci ne saat faat yi weesuwul allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaari alazim loolu képp ay salaatal faatixi alfaatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaq nasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim loolu yépp tagg la ndax yonent yàlla Muhammad tagg bi dafa am doole bon nag loolu lañ leen doon jox comme nuyoo di daaneel kaddu incha di may gaañ yi ñu barkeel lu tuuti rek ci añ yi yal yàlla barkeel ko ku yabu rek góor góorlu ci xalbu bi xalbu bi waa xalbu bi xol bi wolof da ko lisimal ndax amul baat bi moo tax muy xol bi mooy xalb ci arab kon nag sëriñ Habib Fall ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar boroom xam-xam bu teewee ci jotaay dañ koy tudd dañ koy sargal gis nañ sa taxawaay ci kër gi kër gi bu ma ko waxee nag mooy lislaam bi gis nañ ci sa taxawaay yàlla na yàgg fa tabarakallahu maa ngi nuyu itam ngeen baal ma rek maa ngi koy ramassé waaw boroom xam-xam bu bu bu mag bu bu bu bu bu yaatu dënn moom itam waaye nekk sama soppe it nekk ku baax ñu di ko suivre à travers le monde entier muy Serigne Hassan Seck bii toog sëñ Hassan ñi ngi lay nuyu sëñ Hassan ñu ngi lay ziyaara sëñ Hassan yal na yàlla yàggal taxawaay bi ñun dey ñu ngi ci seen gannaaw rek comme ñun dañoo féetewoo donga yi ci daara ji ñu ngi ci seen gannaaw di leen ñaanal yàlla te wallahi bay boo kuy jéem rek na jéem ci yéen jàmm barke Cheikh Tidiane yi yéen ñii nekk fii di wax ci ay waxu yàlla yeeg yi waxu yonent bi yeeg waaye sama Cheikh yi kuy jéem ci yéen na jéem ci yéen jàmm yàlla doful jinne jàpp ko bay seetaan ñi ko fi nekkal gaa yi di leen kall-kalle du ko def hmm, yàlla ma yàlla baal yàlla am na lum dul seetaan keroog Badar yonent dafa taxaw wa ashaabu daldi di ni ko allahumma tàllal loxo yi ca kaw buur yàlla in tuhlak hadihi al isaaba falan tubada min baadihim abada boo xoolee ba kuréel gi ñu rey leen faagaagal leen pare nga ci yow yàlla ñàkk nga dootoo amati ku la jaamu sunu borom ni jibril jugal bul toog jibril wàcc ànd ak saxaaba yi te am na ci saxaaba yi ñu gis jibril ak malaayika yi te moo ne sayiduna abou bakar ak li muy baax yépp gisul benn malaayika loolu du dara ci yëf yi keroog jibril seydil haj malik radiallahu anhu nee na fas wa mu waroon ma nga tuddoon xayzuum kon nag Eh, yéen ñii nii di boroom xam-xam yi di yee nit ñi ci yàlla yéen la fi yàlla am kon nag seen xasan yal na yàlla yàggal taxawaay bi yal na yàlla dëgëral leen maa ngi wax nag lii may wax ci suma turu mbokki daara yépp waaye it di ko wax ci suma turu mbokkum daara particulièrement di Seydil Hadj Malick Dieng bii toog man ku ma sant moom moo la sant man ku ma gërëm moom moo la gërëm loolu la yàlla dogal waaye itam nag maa ngi nuyu mbokk mu baax boroom xam-xam bu mag moom it ku yaatu dënn moom it ku bëgg ñépp ku dul seetaan dara lu ñaaw ku am lool cofeel ci man ak ci mboole boroom xam-xam yi muy sëriñ Babacar Thiam bii toog dégg nga sama papa nee na sëñ Babacar ku yaru la waaw wax day tingoom seede ndax nag nee na xam-xam bi taxul ndax mën nga koo am mel neneen mën nga am xaalis it mel neneen waaye am xam-xam am xaalis yaru nee na loolu yombul kon nag tabarakallahu sëñ Babacar jërëjëf Caam maa ngi seedeel yàlla de ni sa taxawaay maa ngi koy bëggee ndax kuy yee nit ñi ci diine di leen dimbale te yàlla dong tax ustaas yi kenn fayu leen dara li ñuy def dañ koy def majjaanan fi sabilillah ngir jëm yàlla képp lañ koy defee xam nga li Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu doon wax ni nit ñépp seen dund sànq nañ ko dem na ci maali foro ñépp xoolante mu ni xanaa ba mu des ña nga xam ni ñoo yore salaatal faatixi li maa ugliqa di ko jàng mooy yéen ñii nag dahabat amaaru nnaasi kulluhumu majjaanan illa ahla salaati alfaatixi li maa ugliqa Cheikh Tidiane yi moo ko wax kese dahabat amaaru nnaasi kulluhumu majjaanan illa ahla salaati alfaatixi li maa ugliqa Cheikh Tidiane yi moo ko wax nee na nit ñi ñoom ñépp seen dem na ci maali foro ba mu des ñi jàng salaatul fatiha ألا كثروا ذكر الفريدة ترحموا فتكثيرها فيه مفاز ومغنم ألا كثروا ذكر الفريدة ترحم فتكثيرها فيه مفاز ومغنم بتكثيرها حوز المطالب كلها من الدين والدنيا رضا الله أكرم واسي سيدي ما بغي nga wax benn par benn rek ma ma ma man ma kii ko wala wala nga bàyyi ba sëñ Pape jël waaw firil li firil li waaw waaw waxal bayit yi ala kathiru daf ni ala mani xam nga ci arab baal ma rek baatu ala boo ko déggee rek c'est parce que kii wax dafa bëgg ku ko déglu xarfu tambiih la xam nga boo gisee Siraaj Malik bi muy wax ci ala azimu parce que dafa dafa bëgg ñu déglu ko laylal waaye ala mani kassiru na ngeen barel ذكر الفريدة ترحم lan la ñuy bareel mu ni ذكر الفريدة ci di sikkar ak di tudd fu ngeen toll wurus wi nga xam ni dafa beddeeku wallahi salaatul faatiha dafa beddeeku bokkul ak salaatu yi fan fan daal Cheikh <laughs> wallahi Serigne ngeen baal gis nga <laughs> euh, Cheikh Tidiane yi mooy xutbul faridu moo tax fokk mu am yàqutatul farida hmm. loolu la di alaa kaffiru dikra alfaridati turhamu nee alaa mani kaffiru na bareel zikra alfarida ci di tudd ak di sikar salaatu ba nga xam ni boo demee ci pii yàlla ko dafa beddeeku bokkul ci salaatu yi turhamu bu ngeen ko defee buur yàlla yërëm leen fa takfiiruha fiihi mafaasun wa maxnamu mu ni bareel gi ngeen koy bareel fiihi am na ca mafaasun texeg àddina ak alaaxira wa maxnamu akum koom bi takfiiriha xawdul mataalibi kulliha mu ni gis nga bi takfiiriha ci bareel gi ngeen koy bareel dana ca amee lan xawdul mataalibi làq ak am lépp lu nit di wut ak di ko sàkku kulliha lépp laa wax min addiini wa dunya ridallahi akramu min addiini moo xam la ngeen di sàkku daa dellu ci diine wa dunya ak ci àddina min allahi mu tukkee ci buur yàlla nag kon nag Sidi baal ma ma daaneel rek ala marratun min annaari fidyatun dëgg وموت على الإسلام في ذاك يرسم te li ci yéeme dañuy tooñ Cheikh Tidiane di wax ni loolu Cheikh Cheikh waxul loolu ah ah Cheikh Mouhamadul Bikri moo tëju xalwa fukki at ak ñaar ca Makkatal Mukarram di laaj suñu borom sirru jamii salawaat yi suñu borom daal di yebal benn malaayika mu ñëw ci moom naka jekk. malaayika wàcc ci nit kay mën na nekk inna alladina qaalu rabbuna allahu summa staqaamu tatanazzalu alayhim almalaika loolu mën na nekk li sayidina albakri lakin nashraha bi sayidina almaktumi wa sirri yulamu waaw waaw loolu loolu loolu nag mooy wax ji nag <laughs> loolu la loolu la nag waaw loolu la nag wallahi loolu la nag salaat alfatih suñ borom moo yebal malaayika mu indi benn safxa nuuraniya indi qalamul qudra bindi ca salaatal fatixi li ma uliq jox ko si sin mahamadul bikri siddiqi ne ko téyel waaye boroomam nag ma ngay ñëw ka ko war a tasaare muy cheikh sayid ahmad tijani radiallahu taala anhu wa sammaahu maktuuman an ilxalqi gayrihi cheikh بذاك انتقى العرفان والله أعلم gis nga gis nga foofu ngay xamee ni si lañ may du moroomu la hawla wala quwwata du sax benn kon boog la yabtalina allahu jalla jalaaluhu bi baliyatil i'raadi an ragal